mbokk yi ñu teewlu ci Seneweb TV ak seneweb.com amati na mbégte di jàkkaarloo ak yéen noonu lañ amee tey ji mbégte di fi dalal tey ji ci entretien spécial bi Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye nekk le coordonnateur euh, du mouvement national des cadres du parti euh, PASTEF nekk tamit responsable PASTEF bu ñu ràññee Bassirou maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak ñuy teewlu. lay fay euh, Mouhamadou te di am mbégte gu mag ñëw bokk yow waxtaan bi nga xamante ne yàgg nañ ko sàkku ñun ñaar mm-hmm. Mm-hmm. ko Euh, jërëjëf Basirou euh, laaj bu njëkk bi moom mooy dañoo gis ne gëj ngaa wax euh, donte ne am na ay événement yu bëree bëri yoo xam ne ni jaar na si diggante bi la moo waraloon option boobu. waaw man nag <laughs> média moo dul sama sama mbir trop. gis naa ñu bari ñoo xamante ne damay jot ay invitation yu bari mais dama am ay règles yu minimales yu may observé ci communication yenn saa yi sax ma am yoo xamante ne naa leen xaw naaj mhm. tuuti. Mhm. mais dama jàpp ne ni média bari actuellement bu ñu la dee wax ne tout le temps bu ñu la invité nga dem boo moytul mën nga soofantal sa wax. Mhm. te kuy wax tamit mooy juum ci wax. moo tax wax lu dangereux la. bi ci tegu man dama jàpp ne balaa ngay wax dama fekk nga am li nga wax. parce que dafa war am li nga bëgg a wax ñi nga bëgg ñu dégg ko ak fi nga jàpp ne boo ko fa bëggee boo ko fa waxee dañ ko di nga di nga atteindre sa objectif. man su ma amul critères yooyu bu ñu réunirul ci benn époque rek damay jàpp ne mën naa toog déglu jàng ci li ñu bëri ci li ñuy wax. Mm-hmm. parce que déglu bi tamit jàng la ndax boo foo waxewul rek am na ñeneen ñu am lu ñu wax xëy na lu gën a am solo. Mm-hmm. li nga xamante ne moom nga naroon forcé wax. te mm-hmm. période boobu période njàng la ci ñu bëri ñoo xamante ne xam-xam la ñuy waxee ndax seen domaine la ñuy waxee. justement euh, yow waxoo waaye moo Moncap wax na lu yàggul dara. génn def benn diagnostic de la situation socio-économique du pays euh, mel ni euh, ndaje bi nga xam ni le président Macky Sall woote woon na ko euh, palais ngir xool yan yoon lañ mën a àbb boole kook tamit ay acteurs de la société civile yu bëree bëri ñuy défendre ay consommateurs pour waxtaan si dund bu cher bi yéen ngeen génn mel ni yoon bi nga xam ni moom le président wax am 11 mesures yoo xam te ni di leen si ñaar si kanam yoo xam ne ni becc woon na ko mu mel ni yéen yoon yooyu yéen gisoo leen gisoo woon noona Euh, nan ngeen jàngatee la situation économique du pays ak ndogal yi nga xam moom le président Macky jël. li ñu war a njëkk seetlu mooy yaakaar naa ne ni sénégalais yi sonnee ci at yii ñu weesu. Mhm. rawatin deux mille dix neuf ba tey gëj nañ ko sonnee lool lool lool. Mhm. te foog naa ne li ñu traversé ci diggante deux mille onze ba deux mille douze bu muy falu. ci bu ñuy def alternance di ko tànn moom président Macky Sall ak ñu mu àndal pour ñu yar réew mi ak lu ñu diggee woon. Mhm. wuute na ak li sénégalais yi doon xaar euh, wut li ñuy dund tey wuute na ak li sénégalais yi doon xaar ndax lépp li nga xamante ne sénégalais yaa ngi koy jëfandikoo muy loo xamante ne day euh, dañ koy jënd tey la gën a jafe tey la gën a cher tey la gën a méttee am sur tous les plans pour li nga xamante ne consommateur mu ngi koy yëg muy dangay ngay dundee ceeb lu bari. Mhm. da dundee yàpp da dundee jën gi nga xamante sax li ñu am ci géej hmm. kenn xamul nu mu toll hmm. wala sax nga bëgg euh, tabax lu mel ni ciment ak trois cimenteries Sénégal lu mel ni fer amul lenn loo xamante ne tey daan nañ ko jënd mu yomb avant président Macky Sall doon ñëw te nekkul ne dafa gën a cher ba jéggi dayu y compris li nga xamante ne mainteniroon na euh, prix si benn durée bu xaw a yàgg bi mu fi falo en 2012 euh, ba ñu daanaka sax ba balaa premier mandat bi di jeex boobu dara yokkul ñoom sax na ko doon ndamoo naan dara yokkul bi président Macky Sall nekkee woon jamono jooju ba tey xam nga loolu aussi dafa amoon lu ko waraloon mooy bu muy ñëw li baril pétrole doon jar mm-hmm. avant ba indi woon émeute électricité Sénégal diggante 2011 mille 2012 ak bu mu yegg see nu mu wàccee loolu opportunité la woon ci moom pour mu wone pour mu profité ci mais bu fekkoon ne loolu politique la woon bu jur résultat yooyu ñu doon ndamoo kon tey li sénégalais di jooy nii duñ ko jooy dañ ci jël misaal bu yomb rek muy bu mu ñëwee 2012 dafa ab juróomi at donte juróom-ñaari at la amoon mu ne dinañ fexe ba dootu dootuñu jéggaani ci ceeb mhm. autosuffisance alimentaire euh, en riz en 2017 def PRACAS def PEDIDAS teg ñu egg ba 2017 atteindre atteindre ñu auto autosuffisance alimentaire amuñu humilité ñoom toog xoolaat évaluer lan moo waraloon engagement bu ñu jëloon ak horizon bu ñu jàppoon ne mën nañ ko nañ ko ci am mm-hmm. lan moo tax atteindre ñu ko ñu nekk di jouer sur les chiffres ba ñu egg sax ñaari at après amuñu autosuffisance alimentaire en riz mais amuñu pudeuru bañ ko inventé di ko jéem a dugal ci force ci xelu sénégal yi foog naa ne ñun ñëpp seete nañ ñu ne ci bi 2019 jotee moom muy battre campagne dem war a daje ji Sénégalais yi ko joxoon mandat wax ak ñoom war leen wax ne lii ci dëgg def naa ko lii ci dëgg maa ngi ci tànk def ko lii ci dëgg defuma ko mais dafa plaqué affiche bu rëy ci VDN fii ñëpp di jaar bind fa ne damay watal Macky Sall ndax dafa réaliser suffisance alimentaire en kon bu demee ba moom mu mën a naxee boppam noonu di ko def ci affiche de campagne électorale ça signifie que lu ko soxal du résultat bi waaye lu muy gëmlee sénégalais yi donte loolu mën na bañ a méngoog dëgg. mais su lu mu doon kañ mooy euh, grand bond en avant yéen defoon si wàllum production si wàllum ceeb. nga wax ne de mais ceeb waalo bi ñu si doon def promotion ba yenn saa yi sax naan sénégalais ñoom ñoo ko jubluwul moo tax. non bu boobaa da ngay ne def naa ci ay bon. Mhm. mais doo ne ne réaliser naa ko. Mhm. parce que entre def naa ci ay jéego ak matal naa ko. Mhm. boo jógee ci jéego yi nga def mu wóor la ne ay jéego nga def matalu goo ko nga ne matal naa ko rek yaa ngi ci manipulation boo xamante ne njiitum réew dëgg gu ko war ci digganteem ak askanam war na ko jomb. li ci tegu nag mooy statistique agricole yi ministre Moussa Baldé surtout bu mu fi nekkee. tout le temps da doon wax syndicat wu euh, ministère agriculture génn ne lu mu wax du dëgg walla sax agriculteurs yi ci seen bopp def calcul yi ne bu fekkoon ne lii jaay nañ ko pour Sonacos ak ñi nga xamante ne mooy huiliers yi lii exporté nañ ko li ci des fan la dem mu wóor la nag chiffres yi du marché bu fekkoon ne dañu jëpp jàpp loo xamante ne loolu la ministre bi annoncé gis nga Mouhamadou réew bu ñu la ko joxee nga xam fi nga ko jëlee xam fi nga bëgg a jëm boo fa eggul politique politicienne ak démagogie bu mu tax nga ne lii réaliser nga ko fekk loolu amul leen loo ci def kon dama jàpp ne modèle bi nga xamante ne modèle économique bi ñu teg tant que changé wuñ ko ba pare reconnaître fi nga xamante ne foofu la échec yi nekk mm-hmm. trouver des mesures euh, corrective mhm. yoo xamante ne ñoom buñ ci tëlee sax nañu ubbi ay concertation parce que lu soxal Sénégal la. mais concertation yi ñu mujjee def nag. yooyu foo koy dugal. loolu du concertation c'est tous les acteurs. non non non waaw qui qui qui défendent les. les consommateurs loolu du concertation. parce que boo boo ko doxalee noonu populisme ngay def xam lan moo tax di nga ci woo un Bassirou Diomaye fay mu ñëw wax xalaatam wax xalaatam réew bi amee problème ñu waral ñu war a régler xool naka la ñuy saafara problème yooyu. ñëw wax sa xalaat du loolooy saafara problème da ngay woo ñoo xamante ne dañuy ñëw wax lu ñu xam mm-hmm. doo ñëw woo ñi nga xamante ne ñëw wax lu ñu xalaat parce que secteur bu nekk dafa am loo xamante ne moom nga koy jox exemple tey nit feebaroon fii Sénégal xam nga dem wooy gardien yi ci biti ci nga ne leen ngaay leen loo leen ci xam pour naka la ñuy def pour mu jóg mm-hmm. dina ñoo xamante ne wax yóbbu ko kii de yóbbu ko euh, hôpital mm-hmm. mais boo yaakaaree ci ñoom paj bi nga xamante ne moom la ñuy saafara mbir mi doo am résultat par contre boo wooyee ay médecins di nga am résultat. mais am na si ñoom dañoo ñëw at ay études yoo xam ne nii def nañ ko sur le marché euh, notamment wax ne euh, njëg nga xam da nga koy wàññi euh, nangam pour cent de ñi nga xam te ni ñoom ñoo ko war a wàññi yëguñu ko wala askan bi yëguñu ko wala nangam de pour cent bu ñu defee étude ñii ñoo koy appliqué ñii appliqué wuñu ko yu mel noonu chiffres yooyu itam président daf koy soxla. loolu constat la loolu constat la mais fuñ ci mujjee mooy mooy d'accord dañuy defar numéro vert. Mhm. pour ku gisati loolu loolu du mesure soyons sérieux numéro vert li nekk ci dëkk bi ñoom soxlawuñu numéro vert pour xam nañ ko parce qu'ils ont des services du commerce yi réguler les prix sur le marché boo lool boo ci bëggee andi safara da ngay dem nga waxtaan ak commerçant yi UNACOIS ñoom ñiy importer. Mhm. lan mooy gulo yi nga xamante ne moo tax les prix yi ñuy appliqué bu ñu tegee marge bu ñu war a teg incompressible ba ñoom boo leen waxee wàññ ba à l'époque le ministre Aminata Assome Diatta jëloon arrêté fixé prix menacé sur le marché duñ ko def boo leen bëggee forcer loo ñu jaay loolu ñoom commerçant yi dañuy téye seen seen seen seen seen marchandise. d'accord nga amaat hausse nga amaat euh, pénuri amaat beneen hausse. kon loolu du du c'est pas c'est pas c'est pas. mais ndax du solution président Macky Sall bu ne dégagé na benn enveloppe de six cent milliards boo xam ne nii. Euh, lépp dafa jëm si woyofal njëg yi yii nii jëm si ay allègements euh, fiscaux yeneen yi jëm tamit si ay subventions ak yeneen yi mel euh, par exemple bu ñu xoolee si onze mesures yu bokk na si quinze plus de quinze milliards yoo xam ne ni teg nañ ko pour fay compensation financière yi nga nii dina tax gën a njëg yi gën a yokku gën a wàññeeku pardon am na tamit lu war a tolloog trois milliards de francs CFA yoo xam ne ni am nañ ko si wàllum riz paddy yoo xam te nii teg nañ ko pour ñi nga xam te nii ñoom ñooy producteurs yi ak deux francs pour ñi nga xam te nii ñoom ñooy transformateurs yi pour mu mën a am jeexital si njëg yi loolee tamit wàllum koom la tey lu agir la si prix yi. gis loolu mooy mesure palliative. Hmm. gis nga am na foo xamante ne boo fa boo fa tolloo ci feebar même boo demee ci hôpital bu gën a xarañ dootuñ nekkati di la di la faj dañuy nekk di la accompagner du mesure curative la ñu lay appliquer thérapie curative mais thérapie palliative lañu lay appliquer pour accompagner la ci gestion bi kese ay douleur ak yu demee noonu loolu li li ngay wax ni xam lan moo ko waral c'est-à-dire tu es mesure de soutien de perfusion une économie un pays mënoo ko développer par une perfusion permanente parce que nit mënul dund sous perfusion permanente dañ lay perfuser de façon permanente nga nekk sous oxygène te noonu ngay guddee fan nekk ci wér doo ko gis fen lan moo waral ñuy def loolu comme ni ma ko waxee sànq bu desatul dara lu dul xam gis nga ay conflit ay dérèglement sur le marché international ñun amu ci maîtrise pour mën a wax ne liy dootul amati ndax même les dérèglements intérieurs amuñ ci maîtrise bu tax ñu ne fii abadan daay man dérèglement dootu fi amati kon ñun ñoo war a intégrer xam ne dérèglement mënul di ñàkk naka la ñuy def nag ba dérèglement bu amee au moindre choc exogène duñ ko ressentir bu dee ci wàllum lekk yow yaay fexe ba li ngay produire nga koy jaayee fii. justement mën nañu li ngay lekk nga koy produire dafa bokk si argument yi ni gën a teg sur la table Covid 19 jaar na fi ak euh, la guerre en Ukraine euh, mais am na si yoo xam production ñëwagul lu mel ni le blé par exemple ñun si yaakaar Ukraine bu baax a baax euh, loolu noonu production bi bareegul fii. ñu ngi wax ne sax def nañ si ay gëstu yu wan ne mën nañ ko cultiver fii nii. mais ba tey amul jéego yu kii yu bari. ba tey da ngay ànd rek ñun nu ñu exposé wu au moindre choc au moindre choc. exogène maanaam bu dara xewee ci bitim réew rek ñun nuñ koy yëgee nu mu metti naa la jox ay ay ay misaal yu bari nga xam ne yenn yi sax du du question de blé Ukraine ak Covid 19. ren gii nii mhm. kilo dugub ci sama village dem na bay jar téeméeri dërëm jamais mosul am. ay ñaata la bu cheroon ba cher ci plein nawet. li mhm. nga ko doon amee deux cent cinquante deux cent soixante quinze maximum. bu dee début hivernage bi heure bi nga xamante ne nit ñaa ngi góob. Mhm. ba fii ba mois de décembre daan nga ko am cinquante franc soixante quinze franc cent franc ba cent cinquante franc maximum ay at kese ci gannaaw gis nga dugub duñ ci tuumal Covid 19 ndax jógewul Chine duñ ci tuumal Ukraine ndax jógewul Ukraine benn. Mhm. bi ci tegu mooy blé bi nga xamante ne ñun dañ ci dépendance dépendant benn dépendance bi. mais buñ ko gisuloon woon dinañ dinañ dund dinañ lekk loo xamante ne xëy na moo gën a seen moo gën a sell lekku mbuuru sax parce que am na ñoo xamante ne mbuuru mi jigu leen mm-hmm. mais mbuuru du blé rek lañ ko mën a defee mm-hmm. ñun ñoo war a endogénéiser suñu modèle économique ba lu ñuy lekk doon li nga xamante ne fii lañ koy béyee di béy li nga xamante ne moom la ñuy lekk pourquoi tey ñu soxla dans les mesures yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu génne xam nga boo demee ba mesure doon nañu dem waxtaan ak Inde mi nga xamante ne dafa ne day day day limiter les mm-hmm. exportations de mm-hmm. brisure de lait ñuy soxla nañ dem waxtaan ak ñoom mais boo waxtaan ak ñoom nanguwuñu sama mesure boobu ça devient quoi parce que lu yàgg mukk. instant moom am nañ benn délai de six mois. mais du yàgg mukk ba Inde di ñu exporter loo xamante ne daf ko soxla pour dundal population te foog na naan Indiens yi ñoo ñu ëpp foofu gën ñoo soxla seen ceeb pourquoi ñuy ñuy ñuy lekk ba mu doy lu ñu béy Inde. ba di ñuy jaay ñun ñuy compter li nga xamante ne ñoom seen li ñuy dese la seen surplus de production lañ ñuy jox pourquoi parce qu'on n'a pas su ñun au niveau interne développer agriculture mbéyum mbéyum ceeb mbéyum dugub mbéyum leneen ak leneen loo xamante ne mën nañ ci dund ba du ñu soxla Inde au contraire Inde buy jaay sur le marché international ñun dañuy jaay sur le marché international ba pare bi yokkoo sur le plan international mu doon suñu intérêt parce que li ñu koy jaay day gën a cher mm-hmm. boo ratee modèle boobu nag à deux ans de la fin du mandat li ngay wax nii yëpp tu fais semblant de faire mais nekkatoo di apporte des solutions yoo xamante ne c'est des solutions qui seront définitives ils ont raté le coche depuis longtemps. solution yi am na sax loo si wax mais yéen au niveau du parti Pastef euh, moom kat wax wax ngeen du yàggul dara à part li nga wax nii yan solution nga jàpp ne moom lañu ñu war a mën a teg pour au moins euh, woyofal dund gi askan wi mën see gis boobu. dafa am ay ay solutions yoo xamante ne ci saa si mën nga ko teg. am solution yoo xamante ne il faut nga changer carrément ce modèle économique dem vers ce qu'on appelle endogénisation de l'économie MOCAP boobu ngay wax ci suñu deuxième université du MOCAP le thème c'était ban modèle de développement endogène la ñuy am maanaam ba koom-koomu réew mi ñu mm-hmm. ñu di ko créer ci biir mm-hmm. kenn ku ne gis ci sa bopp ci li ngay produire ni nga koy jaay ci biir réew mi bu desee ñu jaay ko bitim réew ak nu muy yombee caw bu dee da nga nekk ci ñoo xamante ni dañuy jënd mm-hmm. les premières mesures yi nga xamante ne c'est les mesures les plus urgentes bokk na ci chaque année li nga xamante ne moom la béykat yi di pro produire ñu jox leen assistance nécessaire bu tax mu gën a bari te bu demee ba bari ren gii saako soble demal ba jër cinquante mille francs mhm. mais ren gi producteurs soble yi suulu ñuy seen soble ci seen tool yi parce que da doon yàqu foofu mhm. bu nit ñi produire tamit te amuñu dans la chaîne de de de de de de de de production li nga xamante ne day permettre yow nga denc doo mën a stocké benn production nit ñi dañuy obligé lekk lu ñuy mën a lekk ci saa si Sénégal taxawuñu taxawaay gu tax ñuy exporter parce que qu'on ferme le robinet on dit nañu arrêter les importations par exemple d'oignons mm mais pendant que le marché est en train d'être approvisionné nit ñi amuñu fu ñuy denc pour que sur la durée la plus longue y compris sur toute l'année ñi nga xamante ne produire nañ seen soble ñu mën ko denc di ko mettre sur le marché de façon progressive donc sur cette chaîne là boo ci produire boo boo ci boo ci investirul doo mën a doo mos a atteindre une sécurité alimentaire. d'accord loolu par exemple solution la. Mhm. ci ci ci ci solution à à à long terme à court terme yi mais am na ñoo xamante ne tey bëgg nañoo béy pourquoi la viande chère te mu am ñoo xamante ne ñu leen dimbale woon ñu ñu dem ci càmm mhm. du ñu jéggaane ji yàpp. ci dëkk yu mel ni Mali wala feneen parce que am nañu les superficies yu doy pour def de l'élevage intensif boo xamante ne moo gën a mën a produire de la viande de qualité mm-hmm. et avec un cycle plus rapide que élevage extensif yi ñu bàyyi nii suñu xaritu pël yi di dox des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour dem uti ji fu ñu wuggee seen nag yi wala ñu dem vers des prairies vertes loolu mënul nekk loo xamante ne mooy la solution pour l'autosuffisance par exemple en viande mm-hmm. donc yow financel ñi nga xamante ne des exploitations agricole familiales que mu nekk sur le plan pour béykat yi wala ñi nga xamante ne sàmm ci sàmm lañ gis seen bopp bu ko defee yow sa chaine de production sur les différents types euh, de produits yi nga xamante ne dañ koy soxla pour dund pour lekk te loolu c'est primaire lekk boo lekkul mënoo def leneen geral loolu ba pare mais noonu nga ko mën a gérer mooy démultiplier les coopératives démultiplier les financements yi nga xamante ne dañuy jàppale yi nga xamante ne comme on l'a vu hier en Casamance bu ñu jàpp bañ leen jàppale rek moo tax par exemple la production de màng wala un autre de production di mm-hmm. yàqu dans l'anacarde et cetera mm-hmm. parce que amuñu la le le financement qu'il faut pour mën leen transformer mais ils ont elles ont prouvé que mën nañ transformer loolu stockage bi gën a yàgg c'est plus sain en alimentation et mën na nekk sax quelque part un gain mm-hmm. par rapport à certaines maladies endémiques yi nga xamante ne dañoo sonal ndax lekk ju bon d'accord léegi mën nañ avancer tuuti wax ci gouvernement bu bees bi mais d' abord ki ko jiite le retour de Amadou Ba mais bi yoon bu nekk le premier ministre euh, ma lire la sur euh, Facebook nga bindoon mel ni li ma si dégg euh, d' abord le poste de premier ministre di tax mu ñëwaat lu ñu dëgtal le président Macky Sall ba pare le choix porté aussi sur Amadou Ba idem. <laughs> man en tout cas ci information yi ma amoon à l'époque mhm. lii la doon wone y compris bu mu voyagé ñi mu waxal bu mu demee. lu mu àndaale woon ndax li ko taxoon jóg ñu ko diggoon et cetera et cetera si base boobu la ñu waxee woon mënoon nañu wax sax c'est un exercice risqué parce que temps bu mu toog entre temps xëy na il a fait de la résistance par rapport ak pression extérieure yooyu. Hmm. résistance bi lan la woon mooy non non d'accord mais j'attends de voir ce que les locales donneront locales yi ñëw nga gis ne yaa ngi yaa ngi ñàkk doole. nga ne d'accord amul problème naa xaar ba législative est-ce que je vais pouvoir inverser la tendance pour def un choix qui correspond à ce que je vais faire par rapport à mes projections politiques législative yi ñëw nga gën a ñàkk doole moo tax boo gisee discours am la veille. waaw le vendredi bi précédé le samedi bi mu defee gouvernement bu bees. fondamentalement lan la wax rien c'est comme quelqu'un qui dit d'accord vous m'avez forcé la main mais je vais aller parler tout le temps bi nga fa nekkee. tu as pris tellement de de de de de de, de, de l'envergure écrasante par rapport à ce peuple la que dóor leen Covid 19 da ko jot nga génne la fooy di leen dóor ñu guddee parce que tegoo ci seen loxo moyen de transport bu tax ñu gaaw a ñibbi. Mm-hmm. ngay dem en tournée politique ànd ak te te nervi ñu di leen maté boo demee ba jël cet écart la avec le peuple boo xamante ne kontaanul ci sa mandat. même bu ñu la forcer leneen de l'extérieur nga ñëw bëgg a wax ak peuple boobu doo am loo leen wax tu es mm-hmm. de te de sur ce que tu dire parce que tu ne peux pas mm-hmm. mais ban façon pression le président Macky mën a mën a mën a mën a am ba mu indiwaat ko poste premier ministre ba sax mu tànn Amadou Ba. mais vous savez poste de premier ministre bi bu ñu koy def bu ñuy defaat la loi. Mm-hmm. d'abord nañu nañu xool historique bi bu ñu battre campagne aussi important dans l'instit euh, sur le plan institutionnel est-ce que dégg nga ko 2019 mu ne bu ngeen ma falaatee dinaa dindi le le le le poste de premier ministre pour que jël teele sama bopp affaire bi affaire bi gën a gaaw il l'a pas dit. Mm-hmm. def ci noppi. Mm-hmm. nëbb ko askan bi ba ñu mm-hmm. fal ko. mu supprimer ko en mu supprimer ko. bu mu ko supprimer ba pare bu mu waree ñëwaat procédure d'urgence la ko awalee assemblée nationale. mais naka la dara di jàmpe ba nga jaar procédure d'urgence pour jël loi bi nga toog neuf mois après te tegoo la poste de premier ministre au motif que yow tu es président de l'Union africaine xaw ma de la de la CED en exercice de la mm-hmm. CEDEAO xaw ma de l'Union africaine et que tu tu tu seras par ailleurs au point que yow da ngay soxla kenn koo xamante ne pour que mm-hmm. mbir yi gën a gaaw gën a ñoŋ il faut nga décharger wu sur un premier ministre mais nga toog neuf mois pour un mandat bi nga xamante ne trois ans moo la ci dese précipitation boobu nga demee woon def ko defaloo ko de façon logique on seen s'interroger mais boo amee yenn information yi da ngay xam ne ko loo gis mu doxal rek am na lenn lu nekk ci gannaaw soit c'est un calcul politique soit c'est une pression. lan moo nekk ci gannaaw mbir mi. foofu lañ mën a yem xam nga am loo xamante ne aussi. <laughs> Amadou Ba le dauphin de du président Macky Sall. je je crois pas trop euh, euh, au dauphinat de actuellement mën na am nag mais bu dee dauphin c'est pas un dauphin boo xamante ne dañ ko tànn pour ne kii nii. moom laa tànn pour dauphin parce que doy na ma ci wuutu ma ci li nga xamante ne moom laa bëgg a def li ma gën a gis mooy kenn koo xamante ne dañ ko dara teye bu demul bu demalul boppam comme de façon nu mu ko waaje woon mu doon koo xamante ne dañ ko dañ ko dañ ko tere mu dem waaji ci candidature am parce qu'on est mois des élections un dauphin dañ koy bàyyi mu dem préparer ci candidature mais doo ko enferrer dans en truc dans un dans un dans un attelage gouvernemental mu war a am mu def mais on attendons de voir. c'est la France qui a imposé Amadou Ba. je sais mais mën na am toujours est-il que lu gën a essentiel c'est même pas ça li essentiel mooy ki ñu tànn qu'est-ce qu'il va faire d'ici moins de deux ans yi ko dese. Mm-hmm. moom le régime. pour soulager les populations est-ce que c'est l'homme de la situation est-ce qu'il y a même un nom pour cette situation-là qui est extrêmement carabiné au regard des mauvais choix antérieurs qu'on a en termes d'investiture qui n'étaient pas prioritaires mm-hmm. et qui étaient que euh, prestige on lui on lui on lui reproche parfois d'avoir une proximité avec Pastef kan euh, Ba da nga ko reprocher surtout avec euh, le leader de Pastef nu jàpp ne sax looloo waraloon sa euh, euh, leader du koy critiquer lu bëri wala moom tamit aussi euh, benn doxalin bi si wàllum politique du ko jëmee si si Pastef ndax loolu wér na. non c'est-à-dire les gens veulent que nous déployions des contre X ou Y. wala bu ñu demee bay xeex seen xeex si biir ne waaw yow da ngay jàppale diw ci suuf parce que doo attaque diw parce que diw du la attaqué loolu seen xeexu biir la. ñun doon wax ne sax daf leen di financé. Amadou Ba. c'est un collègue ou ancien collègue à nous mm-hmm. ñu am ak ñoom comme des rapport de collage collégialité mm-hmm. yu rafet donc c'est pas une question de personne moom bu mënoon dara ci ñun ci bu ñuy créer Pastef kon Pastef du judd parce que lu mu ñu waxoon mooy dara nekkul APR kaay la ñu récupérer lii jarul ngeen di créer parti politique ñu nekk ñun gëmuñu li APR nekk di dérouler bàyyil ñun ñu dem tànnal suñu bopp suñu yoon ak li nga xamante ne moom lañ gëm gëm comme éthique politique ne lool moo nar a soppi Sénégal on a on est on est parti tout seul de rien sans moyen sénégalais yi dégg nañ. li nga xamante ne moom la bëggoon ngeen dugg bi ngeen door politique. jéem loolu la doon jéem mais ça correspondait pas à ce qu'on veut faire maintenant moom il est dans le pouvoir il assume ses positions dans le pouvoir nous sommes dans l'opposition nous assumons nos dans l'opposition et toutes les fois dem leen seet les discours du président Ousmane Sonko lors des passages de c'est des échanges sur la situation économique du pays parce que bu réew mi taxawee amuñu ci xarit amuñu ci mbokk amuñu ci am di jàmm day jàpp ne lii mooy intérêt réew mi ci loolu la ñuy wax sans conte nag diw mi am nañu moom euh, proximité affinité wala am nañu moom animosité c'est pas ça le plus important c'est pas les personnes c'est les actes qu'ils posent yi nga xamante ne dañ koy dañ koy jël di ko teg te mu am njeexintal ci réew mi ak ci waa réew mi. am na jàpp ne Amadou Ba son ku mën a apaiser la sphère politique euh, sénégalaise la ndaxte nit ku am amee dal la ba pare aussi ku war a mën a composer ak l'opposition la euh, loolu ndax jàpp nga ko. est-ce que soxla na composer ak opposition parce que li nga xamante ne mooy pourrir le climat économique le climat politique amul lenn loo xamante ne mu ngi ci loxoom liñ koy xaar mooy coordonner action gouvernement bu mu nekkee premier eh, ministre de l'économie et des finances ñu gënoon ko soxla par rapport des finances publiques. ci ah, lañ taux de croissance bi yéeg ay six point nangam pour cent. avec un taux d'endettement de combien 67 pour cent. presque à à sept pour cent du du du du ratio. du ratio dépassé bu ñu pour cent bi. non mais. yooyu moom. mais de la France bi nga xam am na une maîtrise sur ses finances publiques. c' est à dire il a eu un endettement pas responsable toute la durée de son magistère au niveau de, de ministère de l' économie et des finances. donc c'est pas Amadou Ba moo nekk la panacée au problème qu'on a maintenant par rapport au dialogue politique loolu da amul lenn lu ci nekk ci loxoom parce que nañu fàttaliku ne bu avant son éviction du gouvernement bu mu demee def émission ak Papa Ngagne Ndiaye et que nous nous avions l'information qu'il allait être éjecté pour les raisons que nous savions yi taxoon mu dem. lan moo taxoon mu dem. mais parce que Macky Sall en ce moment là. képp koo xamante ne amoon na envergure mën ko remplacer ka nga tudd Amadou Ba ka nga tudd Aly Ngouille Ndiaye ka nga tudd Mimi Touré il fallait que tu débarrasses le plancher te puisque moom dañ ko doon prêter de ambitions politique la preuve yaa ngi wax ci affaire Dofina il était condamné à partir au même titre que Aly Ngouille Ndiaye au même titre que Oumar Youm au même titre que Mimi mais bu mu ko xamee dafa dem il a enchéri par rapport à la loyauté par rapport à la à l'aplatissement devant le président lan la wax. ñun dañuy gunge président de la république. ba fu ñu ne ko ci mandat wala ci vision mu ne ci lépp xanaa déggoo wolof. donc kenn koo xamante ne pour sauver sa peau les règles minimales ñi nga xamante ne moom la constitution imposée sañ na ko foulé au pied les engagements par rapport à à, à, à, à la parole de respecter la constitution telle que nañ ko tegee mën nga ko foulé au pied kooku mënul composer avec l'opposition parce que xam nga opposition lan la soxla. le dialogue il est nécessaire hein, entre le pouvoir et l'opposition man loolu laa gëm c'est important que le pouvoir et l'opposition dialoguent mais dafa am base bi nga xamante ne ci la war a reposer wu mooy le respect mutuel le respect de la règle de la règle super suprême bi ñuy régir ñun ñëpp ko mhm. mu nekk le règlement de l'Assemblée nationale la constitution la mhm. loi mhm. et surtout la sincérité dans ce qu'on se dit que bu ñu ko jàppee ñun dinañ ko të bu ñu ko të tënkee dinañ ci dinañ ci dinañ ci tënku ñun ñëpp yow la ngay dégg si gouvernement de combat tu de combat le seul sens bu mu mën a am mooy ñoom lañ dem combattre avec les difficultés que traversent le Sénégalais fu mu nekk nii école ubbi na il paraît qu'il y a 67 écoles qui sont inondées il y a un déficit de 47 000 enseignants dans le pays et c'est te xamoon nañ école dina ubbi qu'ils sont en train de commander nee nañu 3000 Euh, 300 000 tables bancs pour résorber le déficit je ne parle pas des abris provisoires bi nga xamante ne ah. taw bi détruire na leen ba pare ñu amee adversaire bu ñu war a identifier naan dañuy combat la ñu war a combattre bu ñu ñu war a combattre nañu xam ne que kilo ceeb diwlin jën ciment fer lépp tey tumuranke nañ ci ci cherté bi mu cher la ñu war a combattre bu ñu amee lu ñu war a mooy naka la ñuy def ba école bii ubbi accords yi nga xamante ne am nañu ko enseignants yi ñu respecté ko ba année année une année scolaire bi nekk une année apaisée parce que le cycle de grève bu ñu xam depuis bientôt douze ans wala lu ko weesu mhm. il a fini de déteindre gravement sur le niveau des des des élèves d'année en année te gis nañ production bu muy joxe au niveau des cadres qui ñuy liggéey dans le pays que mu dans le privé ou dans le public on ne continuer comme ça et prétendre combattre auprès de grandes nations et devenir une grande nation c'est un c'est un drame donc bu ñu amee combat yu ñu war a livrer c'est ces combats là gis nga bu ñu identifier beneen adversaire bu dul boobu nañu xam ne ne qu'ils se sont trompés d'adversaire qu'ils se de combat et bu ñu amee ndam bu ñu yaakaar ci adversaire bu ñu identifier sax ils auront perdu la bataille parce qu'ils n'auront pas mené la vraie guerre bokk na aussi ci dossier yi ni gën a discuter à nationale peut-être mooy loi d'amnistie bi nga xamante ni ñu ngi koy ruumandaat en faveur de Khalifa Sall et Karim Wade euh, ban position par rapport euh, à cette bon du ma ne proposition parce que euh, wala projet ñëwagul mais en tout cas cadre yi nga xam président Macky Sall yëkk na ko en conseil des ministres dénk ko le garde des ngir xool yan yoon nañu war a jël pour réhabiliter ñoom Karim Wade ak Khalifa Sall. après mu ne amnistie ou toute autre voie. Mhm. d' abord dañuy njëkk wax lan moo tax ñooñu soxla amnistie lan nga yegg si sénégalais yi di la xaar ci nga taxaw ci seen soxla ak seen yitte. pour nga saafara seen jafe-jafe yàlla jël la yëkkati la ci ñi nga ci kanamu ñi nga xamante ne ñoo la doon xee nga dellu waatu wàccee sa bopp ba jàpp ne yow di nga war a fayu nga identifier kenn nit sur tout ton lot nga écraser ko dugal ko kaso génne ko réew mi ñi nga xamante ne ñoom la doon àndal bu dee defin am na ñoom la doon defandool mhm. ñu cité woo leen war leen gis nga jël leen nommé leen ay ministre ñuy siéger à tes en tant que ministre tout ça pour ça c'est-à-dire loolu nga def yëpp pour bañ am ay adversaires politique ñi nga jàpp ne ñoo amoon doole nga réduire leen à ta plus simple expression focus totalement sur ni nga war a anéantir cette opposition boo paree ci euh, deux mille Wade 2017 nga jàpp ne Karim euh, euh, Khalifa Sall mm-hmm. menace la par rapport à 2019 nga def pare ba écarter leen. Mm-hmm. nga dem ba jëmi jamono nag nga xam ne lii mënul wéy parce que askan gi ci boppam jóg na won la ne ci bi nga ko tantee ci keneen lii nag dootul jàll parce que ñu la pour lii te injustice bi mënuñu ko kon ne di la seetaan ngay ngay def nii nga doog a toog ba tey bëgg a passer tout ça cette violence la exercée sur des individus leurs familles leurs partisans leurs personnes nga ne nañu fàtte lépp tout ça pour ça la traque des biens mal acquis liñ ca def yépp ci xaalis liñ ci def yépp ci énergie négative dans ce pays-là ci féewaloo pour lii avec quel apport à l'époque quand le président Ousmane Sonko qui n'était même pas en politique mmh. son courage pour dire que lii c'est un combat politique ñu soutenir ci suñu collègue parce que j'étais dans le syndicat en tant que chargé des affaires juridiques tey bu ñëwee oui gars dañu waxoon ne non non nangam nangam mais tey l'histoire lui a donné raison moo tax il faut pas avoir peur d'avoir un avis divergent face semble majoritaire parce que ci jëm jamono sa avis boobu nga xamante ne tu l'as assumé mën na doon l'avis qui est le meilleur avis mais fan la mujjee tey mooy yaa ngi ne di ngay di ngay amnistie mais d'abord ñi nga amnistier ñi nga bëgg am amnistier fu mu nekk ni y a pas que l'amnistie par rapport yow li nga leen tere parce que yow tu les as privés de droit à être éligible et à électeur loolu nga leen xañ mm-hmm. n'est-ce mm-hmm. mais mën nga leen delloo sañ-sañ boobu

mais yeneen moyens yi. non non nekkuma ci nekkuma ci ay contre ak ñàkk a contre. Mhm. j'alerte juste sur deux choses. parce que mhm. bëgguma ñu jóge fii ñu ne Bassirou Diomaye ay contre l'amnistie. waaw d'accord mu leer. Mhm. ñi nga xamante ne ñoom la amnistie bi concerné waxaguñu ci parce que dégguma ci xalifa wax Karim ci mu dégguma ci mu wax ci dont ay partisans mu wax ci. mais sur le plan des principes li tax may explorer li nga xamante ne noonu lañu ñu privé les droits. électoraux euh, de de de de de Karim et de Khalifa. Mhm. c'est par une révision du code électoral fi ñuy jaar noonu c'est une voie qui nous évite que ay nit nekk ci pouvoir ba pare empêcher de façon définitive une comment ça s'appelle une reddition de compte bu fekkee ne man mën naa falu def lu ma neex. ba xam ne dem jot na. Mhm. ma créer problème ne amnistie amnistie sama bopp ñi ma àndandool kon bu boobaa ndenkaane lan mooy doonati sansam parce que saa yu ñu la denkee ba ab jot ab googu ju ab googu ju jote ci di pour diir ab gi jote yow da nga war a ñëwaat ci ñi la dénkoon nga ne li ngeen ma dénkoon lii la c'est pas une une une une euh, ouverture bu ñu war a bàyyi pour des règlements de compte parce que man ma conviction mooy. mënuñu nekk dans un cycle de règlement de compte hmm. politique ci réew boo xamante ne hmm. tardé na ni Sénégal on perd trop de temps on perd trop d'énergie dans des règlements et des petites yi nga xamante ne en in fine ñi nga xamante ne ñoom lañu doon lor yëpp dañuy delluwaat après que le mal soit fait pour penser réparer quelque chose qu'on ne jamais parce que le mal est déjà fait mais on attend de voir parce que un projet d'amnistie comme ni nga ko waxee projet bi ñëwagul projet de loi lay nekk bu loi bi ñu war ko jébal assemblée nationale bu ñuy laaj pour ñu voter ko dinañ xam lan la wundu est-ce que c'est on cherche à expier aussi des fautes éventuelles de ceux qui ont géré pour mmh. les soustraire de la reddition de compte est-ce que est-ce que que je crois que selon li nga xamante ne moom la loi bi di joxe les gens auront mais yéen opposition bokkoon na si li ngeen doon campagne euh, moom mooy euh, boo leen amee majorité à l'Assemblée nationale di ngeen fexe aussi noo leen réhabilité Khalifa Khalifa Sall ak ak ak ak ak Karim Wade kon est-ce que nekkul président Macky Sall daf leen rejoindre rek si seen vœu boobu noonu. oh oui mais à la kuliyaal ça loolu une révision du code suffit une révision des codes suffit parce que le problème de l'amnistie mooy doo amnistie ay nit. Mhm. doo amnistie ay nit. Mhm. tu amnisties des faits sur une période dès que tu amnisties ces faits là et pour cette période là. ñi nga xamante ne xëy na ñoom nga visé en principal en bénéficie mais d'autres personnes aussi mhm. en bénéficient donc dina tax ay nit par rapport au fait amnistie waroon tëdd waroon wuy ji yoon waroon rendre compte waroon setal seen der yëpp opportunité boobu yëpp dootuñ ko amati en tant que ay nit ñoo xamante ne dañu dénkaane woon donc réhabiliter ay nit mhm. ça c'est dans la charte de Yewwi Askan Wi il était dit mhm. qu'on va rendre à ceux qui ont été injustement privés de leurs droits électifs mhm. les droits pour ñu nekkaat électeur et pour être éligible te kon loolu bu fekkoon ne en 2017 l' opposition était majoritaire la la modification du code électoral bi taxoon ñu exclure ñooñu du jeu politique du woon am c' est d' accord euh, beneen euh, mbir boo xam ne nii aussi euh, mi ngi fi mooy yéen seen leader Ousmane Sonko am na sax journal enquête mi titré woon na que sa convocation elle est elle par rapport à ce à ce dossier la quelle est votre position ndax. yéen ngi toujours dans la disposition que Novine bi leer wala ndax da ngeen jàpp na ba léegi mbirum politique moo laxu si ginnaaw. non mais c' est c' est pareil na mbir mi leer ak mbirum politique la c' est pareil je que euh, président Ousmane Sonko a été très clair sur ce dossier là depuis le départ ñu ngi fàttaliku yàggul woon demoon na def émission ne dootul demati signé parce que y' a pas de temps à perdre par rapport à un dossier aussi simple donc li nit ñi di wax par ci par là on de voir parce que dans tous les cas am na loo xamante ne je crois que mënoo en même temps nga def une prise de conscience rëccu bëgg a defar expier les fautes ak tort yi nga xamante ne causé nga ko ay nit ba pare parallèlement que tu cherches aussi à causer de nouveaux torts à un individu amul sens. mais est-ce que buñ ko convoqué woon dina dem wuy ji sans sans faire appel wala sans woote. parce que ñu bëri aussi loolu lañ loolu amaana bu ñuy wax ne dafa am ay risque de trouble à l'ordre public loolu lañ ciy ragal. mais la dernière fois bu ne waxoon na déjà bu ñu ko wuy bu bu bu bu kenn ñëw waxoon na ko non. oui il avait dit ça suñuy benn si sorte mi wooy. ensuite même bi ko nit ñi demee wuyu ji bu mu doon dem waxul woon kenn damay gaay leen mais si les gens spontanément décident comme keroog bu ñu waxee ne dañuy dem mu am ñu fa fanaan qu'est-ce que ci dara. mais bu wootewul amaana kenn ñëw. non mosul woote. no mais xam nga euh, dans les événements de masse daan na def déclaration yooyu noonu amaana moom moo doon doon dem wuy ji tribunal ñu kar ko ci yoon wi loolu bu ko weesoo nag lu ma waxoon c'était clair que liñ may jiiñ nii tuuma gii dara amu ci et je crois que tous les éléments yoo xamante ne jotoon na feeñ avec les journalistes d'investigation les PV ak lenn leen leen wane woon na kii ku sat wécc la te loolu la sénégalais yi jàpp li ma jàpp d'ailleurs les sénégalais sont allés l'arracher des mains de la de de de de de, de l'état bi nga xamante ne était déterminé à liquider. d'accord mais yéen dossier nag yi leen tudd bëri na. force spéciale. Euh, loolu itam ñu am ay ñu bokk passif ñoo xam ne ni jàpp na leen si ñu tuumaal leen si li leen si tuumaal. mu laal ak mbirum tourisme ak nangam euh, at bii tamit euh, seen leader Ousmane Sonko dégg naa ko sax mu ne ñu ngi tëgg leneen tam pour rek empêcher ko mu ne candidat 2024 dossier yooyu itam bëri à chaque fois tam mu mel ni luy converger si si Pastef euh, finalement kon est-ce que est-ce que nekkul Pastef moo war a xoolaat taxawaayam. non non non bu xoolaatee taxawaayam rek mooy na dem too dem wetu Macky Sall jàmm na ñooy ci moom loolu kese la mais Macky Sall amul kenn koo xamante ne mës na nekk une menace directe identifiée. te cherché wul nu mu la liquider amul ñun xam nga kañ lañ commencé dëgg dëgg dëgg dëgg ñàkk jàmm mooy bi président Ousmane Sonko en septembre 2018 defee la présentation de sa de son livre vision solution pour un Sénégal nouveau. defee place de la nation. boobu lañ gëj am jàmm boobu lañ commencé dégg na ay salafiste lañ boobu lañ commencé dégg ay ay rebelle lañ boobu lañ commencé dégg euh, rebelle yee ko voté boobu lañ commencé di attaqué suñu siège siège bu ñu nekk nii. boo yegee pont Saint-Lazare di wàcc. Mhm. sigil nga xool da ngay gis ne am na ay ñuul ñuul yu ca nekk. mais loolu da nga def leader yëpp presque. non mais daqee nañu fa ay nit ñaari yoon ñu andi seen échelle indi seen huile indi seen pinceau pour peinture ay yoof ay jaase lañ ñëw dajj bunt yi fekk xale yi ñu daw tëb mur ba foxoj gor suñu tele yi suñu table yi suñu chaise yi je par parle pas des attaques sur le convoi de pro. kenn xamul nu mu toll dañoo dem a dem a dem sax ba dootuñ ci communiquer je par parle pas de pour la première fois ay nit nekk di dem présidentielle le pouvoir imposer un parrainage des gendarmes di dem ci si kër waajuru candidat di ko ne pour ñu jox ko fiche de parrainage. Mhm. buñ ko fa waxee c'était tellement surréaliste que lan lañ ñu waxal dañ ñoo wax ne loolu mënul nekk ana seen photo yi ana seen vidéo yi mais tribunal ñun ñu topp ko ci yoon tribunal atte daani gendarme bi fa demoon pour violation de domicile et voie de fait kon dañ ñoo yàgg tooñ yàgg ñoo tuumal yàgg ñoo diaboliser yàgg ñoo accuser ci lu amul loolu nag xam lan moo ko waral bu ñuy door a juddu amaguñu doole gu ñu am sénégalais yi déggee woon nuñ ñu déggee dañ ñoo mayoon jàmm mais bu ñu commencé nag ñu xam ne ñii nii sénégalais yi déggal nañu leen topp nañu leen may nañu leen nopp ñii ci suñu kaw la jëm te mën nañu jël nguur gi ci ñun liggéey dëkk bii nii te bëgguñu loolu boobu la ñu commencé am jafe-jafe yi nga am kon que les dossiers se multiplient se démultiplient loolu tant que Pastef mu ngi ci trajectoire ascendante bi luy am la li ci tegu nag mooy jiiñ nit dara yomb na mais prouver ko moo jafe te ma yaakaar ne bu fekkee ne ci réew bi à un moment donné ñoom ci seen bopp ñooy ridicule ñooy foowee les institutions ñooy désacraliser état ñooy dema dema dem ba mënatuñoo wax dara ba kenn jàppal leen ne lii lu dugg la te loolu c'est dangereux ci crédibilité wu état jëlal la dossier de 94 milliards bi nga xamante ne ci président doon wax récemment boole na ko ci dossier yi nga xamante ne ñu ngi koy réactiver waat qu'est-ce qui s'est passé on a une information que 3 4 5 sénégalais ñoo dajaloo ci seeni bureau yore ay kayit yoo xamante ne mën nga ko xotti ak sa loxo ñu bind ak seen ordinateur signé. di jëlal état lu mat 94 milliards ci réew mii ñu nekk ci réew mii ñu nekk 94 milliards ñu téye ci lu dëgër def toutes les investigations qu'il faut mhm. bind OFNAC bind procureur de la République bind IGE procureur de la République ne ñun on a pris huit mois à enquêter moom tamit day jël temps enquêter ba bu muy dem mos nga dégg mu soulever dossier 94 milliards non ñu dem saisir juge d'instruction juge d'instruction def ordonnance de non truc kenn toppewul assemblée nationale ci boppam bu ñu jógee ci élection présidentielle 2019. mu def commission. mu def commission parlementaire tuuma le président Ousmane Sonko. mais OFNAC quand ils ont fait leur rapport rapport baa ngi fi qu' est ce qu' ils ont dit lépp lu président Ousmane Sonko waxoon ci affaire 94 milliards yi dëgg la. et que transmettre na am na lu si lañ ci suñu xel aussi. mais transmettre na hmm. au procureur de la République pour les poursuites qu'il faut. Hmm. lan moo des. lii lañ xel mooy am na ñuy euh, ñuy soupçonné. Ousmane Sonko de conflit d'intérêt ndaxte jàppoon nañ ne à travers Atlas Atlas at Mercalex moom da doon waxtaan ak njaboot yi ba waroon si am commission de 12 pour cent euh, waxtaan ba ba sori après moom sax bëggoon na see am cër loolee tamit yan tontu ngeen si indi. mais tontu yi ñu ci waroon andi andi nañ ko quoi pour man loolu wax waxoon naa saay la quoi cest à ay nit mënuñu nekk di sàcc sàcc njaboot goo xamante ne dañuy jël ci ñoom ay jërëm 1978 ba deux ba année boobu presque 30 ans njaboot gaa ngi daw ci gannaaw. njaboot boobu ne damay dem seeti ci un expert fiscal mu jël un expert mu dem pour mu assister leen. Mhm. am ci droit parce que day liggéey. Mhm. ñu delloo ñu ñu mu dem ba ca biir ne puisque lii commencé naa ko topp ci yoon bu ma continuer day yaakaar na sax ni ma ci nekk moo tax donte mënoon naa ci am temps sax man damay renoncer. gis nga président Sonko ah, jàll dafa renoncer si 12 pour cent yooyu. non non dafa renoncer au dossier ci boppam def ci raxasu ba set wicc def na mënuma leen conseiller. parce que maa ngi ciy topp état pour mu leeral mbir mi parce que am na ci njuuj njàcc te damay bañ ëllëg ñu ne ma ni ngi ci nekk moo tax kon jël leen dossier bi dem leen seeti conseil bu leen neex ça c'est de l'histoire ancienne njaboot gi dem seeti ku ko neex gis nga président Sonko parcours am ci lu mu waneegum bu mu nekkee sur dans le champ politique ak ñun ñi nekk collègue am avant muy dugg ci politique njub ak dëddu àdduna luñ ko xamee la surtout côté xaalis fu mu ko fekk foofu la koy bàyyi député bu muy def as euh, procédure ki campagne électorale ci la dem ci pouponnière Kaolack yaramam daw mu ne man suñ ma falee député te boobu fekk na ñu ñu kii ko ñu ñu ñu ñu révoqué ko de de la fonction hmm. publique mu ne suñ ma falee sama salaire député un tiers bi fii lay ñëw cinq ans un boobu foofu la dem mu dem Casamance gis jigéen yi di liggéey keroog rek laa gis benn vidéo benn jigéen di ko di ko ci sant bu baax a baax jigéen yi di liggéey mu gis ne liggéey bi métti na mu ne leen sama beneen tiers bi donc daanaka sur lu mu amoon pour un pour un leader politique qui se déplace qui a une sécurité ak leneen leneen bu yaakaaroon rek loolu loolu li li ci des dundalul njabootam. tey gi nii à la mairie de jëlu fa benn salaire donc kooku nekkul koo xamante ne day daw ci gannaaw kii. te te te Diallo je vais euh, kon c'est au frais ça c'est frais personnel. gis nga Diallo xam nga. je reste d'abord sur le dossier des 94 milliards d'accord gis nga ñun Sénégal lu ñu war a bay mooy ñun tegal ñu leen lu ne këtt ne jon ci loo xamante ne ñëpp la intéressé ñaar nit ñetti nit ñu fay ñëw ci plateau yi divertir nit ñi ci wax joo xamante ne c'est pour noyer le dossier ba ñi nga xamante ne ñoo ci impliqué bañ a rendre compte abadan ma et c'est ça que les gens font ñi ci waxoon yëpp ana ñu tey. c'est ah Madiambal bindoon na si. ñu bëri tamit waxoon nañ si léegi nag arbitré na l'affaire est entre les mains du procureur na procureur na justice def liggéeyam. d'accord euh, par rapport ak Ziguinchor euh, léegi say déplacement Dakar Ziguinchor c'est assez propre wala au frais euh, du parti. xaw ma ñun parti bi déjà <laughs> li Ousmane di dimbali parti bi bëri na li parti bi dimbali Ousmane bëri na parti bi dañuy cotiser le mouvement des cadre à hier ou je faisais l'inventaire on est à mille cent vingt-trois cadres yoo xamante ne dañuy cotiser. même si des na régularité boo xamante ne nañ ci liggéey dans les prochains jours on met un comité ad hoc pour nous assurer de recouvrer les cotisations si chaque cadre fait dix mille francs on est à onze millions yu teg pour les mille cent vingt trois cadres dans l' année c' cent millions cent vingt trois cent vingt trois millions kon am na loo xamante ne ay nit gëm nañ projet bi. ñëw nañ dugg ci biir ñu ngi ci def seen xam-xam di ci def seen jot di ci def seen alal am na ñoo xamante ne gis nañ kenn mennum sénégalais wala mennum africain buy góor góorlu taxawal réew mi ba lu ne fekk ko ci ñu am alal boo xamante ne ni jàpp ne kii waru leen mën a gore te liñ ci mën a jàpp dañ koy jàppale c'est comme ça que les choses marchent jàllu parce que xeex bi dafa bëri ay ay ay ay fan. d'accord à euh, Ziguinchor mu ne fa des balaa ñu ñëwaat assemblée nationale. Euh, mu réceptionné ay camion euh, ngir euh, mbalit bi waaye am ñu ko gis gis couleur yi vert blanc rek jàpp ne couleur Pastef la même bu nekk am nga si ay leer am na ay leer yu si am marito ñaan waxoon loolu delluwaat gannaaw jàppoon ne dafa juumoon mais ñu gis benn tontu boo ko tontu sur sur sur Facebook mais tontu bi jàppoon ne xaw naa ñagas tuuti si koo xam ne ni dafa gisoon den rek wax ko après sax dem na ba jénnaat <laughs> tout dépend rek xam nga il faut que Mary Teuw Niane c'est quelqu'un que je du def publication ci page bu ma liirul moo tax historique prise de position am na li ma ci xam muy benn ñaareel bi mooy euh, man dama bokk ci ñi nga xamante ne ci biir parti bi dañu gëm ne que président Sonko dafa waroon dem seeti ci ay kilifa ci réew mi am na ñu mu seeti yu ñu siiwal am na ñuy seeti ñu mu siiwalul Ahmed Tidiane Wane. Mm-hmm. Lansana Gagny Sakho. Mm-hmm. Mary Teuw Niane. seeti na Mauritanie bi waaw boobu suur woon. non après législative mais ñun ñoo ñoo ko ci pousse parce que dafa am cofeel gu ñu am ci moom dafa am fu ñu ko nawee dafa am respect bu ñu am ci moom ñu jàppane nag donte biñ koy sant mu def loolu fekkoon na quand le président Sonko est parti faire son discours jaale ji à Ziguinchor. Mm-hmm. le jeune Goudiaby bi qui était décédé qu'est-ce qui dañuy def manifestation ñu rey ñaar nit Ziguinchor foo xamante ne les manifestations de mars ñi fa dee foofu lañ gën a bare aussi à na maanaam tiire fa bal dafa gaaw mu am un rapport de autopsie qui a été procureur génn daal di ne arme blanche moo ko rey. koo jam famille bi ne ñi ko rey ñi for portable am xaw ma ñi ko yëkkati ñoo doon dawandoo ñu jàmm ko dañu bëgg a def contre expertise ñu garder corps bi. 40 jours famille bi mënul def dëjëm président Sonko bu mu demee si Bignona c'est un discours de paix bu leen kenn gëmloo ne que ngeen am problème ak sénégalais vous n'avez pas de problème avec les sénégalais benn bout de phrase. c'est extrait bi ñu si génne woon. merci beaucoup mais sur un discours de 14 minutes am na li li professeur waxoon très dur. utiliser ay termes yu dur mais c'est vrai que nag extrait boobu rek ku mu ko woon euh, Basirou. oui mais mais mën nga noo ko jàngatee. mais boo liiree boo liiree lépp ce que mën nga ko jàngatee noonu. boo dégloo journal bi kii discours bi mënoo jàngatee noonu ma jàpp ne man su ma la naree àtte ci émission bi may wax ni jombal na wax naa fi loo xamante ne boo ko daggee mën na mën na indi xel ñaar mais boo ma bëggee àtte da ngay déglu yëpp lépp nga xam lan laa wax ci ban contexte laa waxoon ban raisonnement logique laa nekkoon mais lu mu waxoon dañ ko ko nangul te pourtant il était dur dur le professeur il a parlé de venin il a dit que le président Sonko ensemence un venin dévastateur il a dit que le président Sonko prononce des mots qui portent le mal. Les mots prononcés sont des mots. Il a dit que le discours est unique, il unique. man j'ai rien dit te pourtant liir naa ko boobu la gënoon métti xam na moo tax waxuñu ci parce que dañ ko naw jàpp na xëy na lii njuumte la benn yoon ñu bàyyi mu jàll mais démb qu'est-ce qui s'est passé tey est xam nga ne les fonds de dotation des collectivités territoriales les fonds de concours ak les role pour certaines collectivités territoriales c'est 70 pour cent ñu voté budget bi depuis le daaw décembre ñu bloqué les collectivité territoriales ba émission rôle yi mois de septembre bii lañ ko def collectivités territoriales jotaguñu seen xaalis hmm. donc li nit ñi di góor góorlu di indi ci seen dëkk yi ngay gis ni comme le président Ousmane Sonko ko def du xaalisu maire bi wax na ko ci discours am góorgóorlu naa di waxtaan ak samay nit ak samay partenaire ba ànd lii hmm. cest à li ñuy xaar de certaines personnes te li may wax nii c'est pas c'est pas c'est pas professeur Marie Marie Théou Niane en tant que tel on a énormément de respect et d'estime pour lui mhm. comprendre nga mhm. mais li ñuy xaar de certaines personnes yu am yenn envergure yi mooy bu ñu leen joxee warma estime considération pour man ñu taxaw ci kaw boobu après di sotti loo xamante ne day yàq der ak j'arrive mhm. j'arrive donc man ci sama bopp quand je réagis, je réagis par rapport à sa Je me dis, mais attends, il y mois, il utiliser des mots très dures dans un contexte extrêmement compliqué pour ñun waxuñu dara mais lii nii nga xamante ne moom lañu nekk di wax nii ça correspond pas à ce qui est dans la réalité te ak lu ma mën di def c'est l'essence même du projet et la personnalité même du leader qui sont attaqués tey bu président ko amee euh, un capital politique xam nga il est bâti sur quoi l'alternative et la crédibilité mm-hmm. maanaam kii lu mu wax lu dëggu la ci moom kii lu muy wax lu mu gëm la kii il mm-hmm. est différent des autres mmh. si en en déformant la réalité tu lui prêtes d'être dans le même sac ñi nga xamante ne moom lay xeex tu t'attaques à l'essence du projet et tu à lessance du de de la crédibilité du leader mm-hmm. ma jàpp ne que loolu amul kenn ku ñu ko war a nangul et qu'il nous faut nous à notre niveau aussi quel que soit respect bu ñu am ci ñenn ñi mën nañ tolérer une première gifle sans pour autant être obligé de tendre la joue droite mais loolu ça en rien le respect et l'estime qu'on a pour les uns et pour les autres. mais bi mu ñëwaatee nangu ne dafa juumoon est-ce que kon loolu waru woon taxaat nga reconsidérer Euh, sa attitude euh, vis-à-vis de moom jàpp ne rek amaana dafa juumoon et il a eu l'humilité de reconnaître que dafa juum. tu sais ce qui s'est passé. Mhm. mais loolu c'est bien ça c'est une lecture mais j'ai une autre lecture en raison d'informations que j'ai parce que il a dit qu'il a parlé à des cadres cadres avec lesquels il aurait pu discuter je sais qu'il a parlé avec président Ousmane Sonko à l'initiative de président Ousmane Sonko. bi mu bindee. oui qui l'a dit grand je comprends lii boo ko gisee nar ci wax mu doon loo xamante ne daf may tiiñal par rapport ak askan bi ma am ni may xoole waxal ak man ba pare ma leeralal la parce que Diallo la vérité mooy nit mën nga ko yedd ci biir néeg nu mu metti métti da la koy nangul mais ni nga ko yeddee noonu ci biir néeg même bu laloo ci dëgg laa la wax de boo koy yeddee noonu ci biti. xas la tiiñal la par rapport ak ñi nga xamante ne dañu am nu ñu koy xoole et c'est ça qu'on attendait de lui. mais président euh, Ousmane Sonko daf koy def ci président Macky Sall. defa daf koy def ci président Macky Sall. non daf koy daf koy critiquer publiquement. non mais est-ce que tey mën nañu ne Ousmane Sonko mais ñun da nga yaakaar ne dañuy bañ critique bañ ñu critique lu ñuy bañ lu mu wax ci euh, euh, par exemple à Bignona je ne vais pas trop m'attarder sur ça mais lu mu wax ci Bignona xam nga décrire naa la que les mots sont sont très dans sa page Facebook que je suis et que je continue à suivre mm -hmm. le 29 def ci wax dans un texte qui s'appelle l'éthique de vérité mm de vérité mu def mu def trois parties première bi mu ne la vérité se vérifie deuxième bi mu ne wax vérité wax dëgg c'est un devoir moral troisième bi mu am fu mu wax ne c'est un drame di wax ci leneen mais dans ci texte boobu defa ne boo waxalee nit loo xamante ne du dëgg même si par rapport on vérifie ñu rendre compte que c'est pas dëgg mal le mal est déjà fait. Hmm. parce que dina am ñoo xamante ne même bu ñu demee ba vérifier lii du dëgg sax ñoom dañuy jàpp ne ko lu ñu njëkkoon wax moo am. et moi je suis tombé sur des de tes collègues qui ont dit que mbuuru foofu que fëriñ en dix qu'il a peint les les les, les camions au au kit te pourtant man mën naa la woon les bus anciennement leur couleur yu mu fa fekk à la mairie c'est vert blanc donc il y a un devoir de vérification qu'il faut d'autant plus que ñun bu ñu doon def ay couleur Pastef rouge vert bi da ciy saf sàpp parce que dañ koy assumer mais defuñu ko c'est un président un maire qui est allé par ses propres moyens et solution solutions malgré des fonds de concours et des fonds de dotation yi nga xamante ne amu ko mu ut pexe indi pour man y avait beaucoup à dire on attend des hommes d'une certaine stature mhm. Diallo bu loolu mhm. amee ñu magnifier l'effort dénoncer le fait état ay citoyens sénégalais fal nit pour mënu yoral leen état téye moyens yi nga xamante ñoom la war a liggéey on parle pas de ça on ne parle pas de l'effort des maires on ne parle pas de ce jeune là qui a inventé une machine solaire buy bale balayer am autonomie jox ko maire bi on ne parle pas de ça on ne parle pas de l'économie solidaire bi nga xamante ne c'est une solution au problème qu'on par rapport à la lutte contre la pauvreté on ne parle pas de de de de de de, de, tout ça on va parler de couleur et de façon erronée. pour man économie solidaire boobu mais SIP dafa am bëgg de ba se régler maintenant. non dina régler wu parce que les sites attaques bari na. Mhm. les infrastructures euh, numériques li ñu ciy attaqué bari na. day am fii day am feneen fan la jóge xaw ma mais man yaakaar naa ne tey euh, sénégalais bu bu mën di doon war na mën a yéene yeneen sénégalais yi quel que soit fu ñu dëkk quel que soit fu ñu dëkk pour ñu pour ñu góor pour pour pour pour ñu génn ci jafe-jafe yu ñu nekk parce que sim nation ce cette commune volonté de vouloir vivre ensemble bu ñuy wax mooy yéenante jàmm ji moo ci ëpp solo. sinon doo am benn volonté vivre en commun ak koo xam te ne yéen a wala jàmm. sànq bi ngay wax si euh, lii euh, li li dëgëral parti Pastef ba fi mu ak fii nii rawatina son leader moom mooy euh, l'alternative d'abord et la crédibilité ensuite ndax jàppoon par rapport li ngeen doon andi ngeen tey jii ñu leen di topp si cumul de mandat. deux de bons deux de bons responsables Birame Souleye Diop ak Aliou Bey assemblée nationale député leen fa ku si nekk ki maire nga euh, euh, Birame Souleye dégg na ni mu wax Aliou Bey dégg na ni mu wax mais ba léegi dafay mel ni volonté bi en tout cas si kaw Aliou Bey si lu ñu déggoon mu wax demeegul noonu euh, ndax loolu tam du entaché seen image waa Pastef. bu ñu ko respecté wul si mais am na loo xamante bëgg naa ñu suivre bu baax li ma nar a wax ni mm-hmm. dañu waxoon ne en 2019 dans le programme du candidat qu'on est en train de mettre à jour on est de faire la mise à jour du programme avec les cadres du parti mmh. di a bu ñu falo dañuy voter une loi la loi étant générale et impersonnelle qui va s'appliquer à tout le monde pour interdire le cumul de mandats électifs loolu bu ko defoon tey que mu nekk waa PASTEF que mu nekk waa PUR que mu nekk waa waa taxaw wala waa pe wala waa wàllu wala waa waa Benno Bokk Yaakaar mhm. beaucoup aurait été tey lem possibilité comme ni ko ministre nekkee dans l'impossibilité de cumuler les deux de devoir choisir benn wala beneen on n'a pas été élu on n'a pas voté de loi rigoureusement tey mënoon nañu wax ne di ngeen waxoon na bu ngeen falu faluwu leen donc mënuñu wax ne que vous avez trahi votre engagement rigoureusement mhm. mais ça rest un engagement moral et un engagement moral pour man amul lu ko féete ci kaw loolu laa gëm mhm. li ma gëm aussi mooy le parti du varier dans sa position te dara ni ko président waxee démb ci discours am Ziguinchor boo ci dee woote yow yaa ci war a jëkk jiitu ñun ñoo ne bu ñu faloo dinañ xeex contre le cumul ñun balaa ñuy balaa ñuy nekk ci pouvoir ni président son Sonko nekkee di démontrer Aliou Bey nekk di ko démontrer Birame Souleye Diop nekk di ko démontrer dans ak yeneen maires yi ñoom Jamil Sané tous les autres maires de Pastef et de Yewwi de ou de Pastef plutôt ñoom laa mën a waxal <coughs> ci lu ñu xamagum te démontrer une nouvelle façon de gérer avec plus d'éthique de rigueur et de mm-hmm. transparence mm-hmm. noonu la ñu war a commencer di ko def mu doon lancement film bi ñu naraw euh, projeté le Sénégalais en 2024 bu wolo ba denkun kon segim wax nag ñoom nee leen bëgguñu cumul cumul situation cumul taxaw na nous devons faire le choix d'un poste au détriment d'un autre hmm. c'est ça la ligne directrice du parti te man ci li ma xam ak ci conviction bi ma am par rapport au discussions qu'il y en interne que mu doon biram Souleye ku mu doon Cheikh Aliou Bey man li ma gëm c'est qu'ils vont respecter le cumul maintenant je considère que qu'ils ont besoin de peu de temps combien ah, de temps kon parti bi appalu appalu leen. <coughs> non xam nga parti bi joxu leen ultimatum. Hmm. dafa waxtaan ak ñoom ñu jël engagement que dinañ ko def. waaw ah, ñoom ñaar ñëpp jël leen engagement. oui ils ont pris l' engagement de laisser l'un des postes. mais mais, mais stratégiquement. Mm -hmm. Euh, est ce que nekkul li leen gën a tënk mooy euh, ils ne sont bu nekkee loolu am na que bu ñu bàyyee benn ci poste yi. Euh, waa Pastef moo leen di wut wala déet est-ce que nekkul tam loolu ci ce risque là existe au niveau de euh, du poste de, de Aliou Bey euh, en tant que député wala en tant que maire ñaar jàmm gën Sicap non ñaar yi parce que boo demee en en coalition mu dem ba coalition mu am ñu ci quitté comme ku mel ni euh, bés du ñàkk. Mhm. te mu amoon ay conseillers la configuration du conseil du conseil municipal change. Mhm. Euh, li xew Guédiawaye on l'a vu. Mm-hmm. malgré la la la majorité de Yewwi on a vu que Ahmed n'a pas pu se former une équipe comme il l'avait souhaité. Mm-hmm. kon lu ne mën na am mais c'est des choses à prendre parce que respecter engagement moral surtout day am lu muy coûter dafa mel ni rek ku ne man duma def set ans deful sept ans. duma ma def sept ba pare dem ba ci biir def sept ans. Mhm. wala du ma def euh, du ma du ma du ma du ma du ma nommé sama frère dem ba ci biir nommé nommé frère am. d' accord te bëggoo leen mel ni ñooñu mais est ce que ay sanctions yu parti bu nekkee ne dem ngeen ba. àgg man non non non ma gaw ma gaw ma ñu egg foofu ak ñoom parce que on xam nañu leen quelqu'un comme biram Souleye bi toog ci kanamu Sénégalais yi ne man dinaa ci tànn benn dinaa respecter l' engagement du président Ousmane Sonko. man boo ma yeewee 4 heures du matin nee ma Birame Souleye ngi ci génn ci loolu ma ne la mënut a nekk donc je m'attends pas à que ñu bañ a respecter ba parti bi di am pour def loolu je pense pas que ils mettront le parti dans cette dans cette dans cette situation la d'accord man gëmuma loolu. yéen da ngeen di woote euh, panafricanisme ak euh, yooyu. Euh, am na sax ñuy naan président Ousmane Sonko espoiru Afrique yëpp la dañ koy dañ koy tudd lu baax a baax si yeneen dëkk yi. mais ñu gis ne li xew Burkina Faso euh, barki démb euh, parti bi officiellement yooyu si yàbbi si la moo waral lool. parce qu'il faut du du du du course contre la montre dara xew na au Burkina même amagul woon stabilité bu bu bi bi bi mhm. war a am. Mhm. ñii ñu ngi wax ne démissionné par moment ñu ne démissionné wul ñii ne mu ngi ci biir réew mi ñii ne du ci nekkul ci biir réew mi. Mhm. Euh, Russie di wax France di wax. ñeneen di CEDEAO di wax. il faut puisque nekkuñu dans les instances officielles pour avoir les informations ci ci à un certain bi il faut faire doucement bëgg a nekk panafricanisme tamit wala bëgg a nekk leneen bëgg ko wone mel na danga ko bëgg a prouver ba lu ne tël na rek nga ne dàmm na day tax yow nga dem ba ci biir rendre compte que juum nga it y avait pas urgence à se à se précipiter pour se prononcer. Euh, mais par rapport ak coup d'état yi de manière générale yéen a moo si seen position wala yow bu nekkee sa euh, à votre nom personnel nga mën a waxee la moo si sa position. non man dama jàpp que euh, l'ordre constitutionnel ne correspond pas à une occupation du pouvoir par les militaires donc fépp foo coup d'état am il doit avoir une transition qui doit être mais coup d'état ci kaw coup d'état ci kaw coup d'état amul benn peuple boo xamante ne sa aspiration loolu la mais ñi nga xamante ne c'est les civils qui arrivent à la tête des différents états surtout africains mhm. parce que lii nii man gisuma ko en Europe gisuma ko aux États-Unis ni au Canada ni nii ci yeneen dëkk yi mhm. ni au ñi nga xamante ils sont dans cette situation la mhm. nekk mm -hmm. nekk civil arrivé au pouvoir ñoom bu ñu nekkee ñu ngi respecté li tax ñu teg leen foofu le mandat populaire maanaam yaa ngi taxaw ci la askan bi bëgg nga def nootoo leen nekkuloo di nekk def un coup d'état institut constitutionnel aussi pour te maintenir au pouvoir ba ay trouble yi am. Mm. état kii armée war a devoir euh, euh, euh, intervenir par un coup d'état mënoon tax ay coup d'état yu bari du am man li ma gëm mooy si Alpha Condé en Guinée avait respecté la limitation des mandats bu te bu tënku woon ci limitation mandat yi organiser une élection transparente ne damay dem ci jàmm ku Guinée yi tànn na doon seen njiitum réew man gëm naa ne kon coup d'état du am. mais yéen la moo seen position par rapport au troisième mandat parce que dañuy prêter ay proto parce que man mosuma gis la vidéo mais dañuy prêter euh, ay propos seen comme quoi il avait dit que troisième mandat moom loolu du ko jaral génn si mbedd mi parce que jàpp na ne euh, bu ñu xoolee si constitution bi lu yoon war a mën a nangu la. non euh, gis nga Diallo. man j'ai publier ci publié naa ci sama page Facebook. Mhm. benn vidéo président Macky mhm. mu taxaw ci pupitre ñu bind ci wii boo xoolee vidéo bu ci suuf référendum 2016 la. 2016 mhm. fekk na président makisal def quatre ans au pouvoir. moom président Macky di fàttaliwaat ne boobu ñu ngi voté constitution bii ñu nekk nii. di bëgg a interpréter président Macky ne li fi xewoon 2000. onze li tolloog fukki doomu aadama ak benn ñàkk seen bakkan pour xeex troisième mandat. Mhm. war nañ ko moytu. c'est le président qui parle président boobu moo jël responsabilité wu jël initiative référendaire pour modifier la constitution man Diomaye su ma gisoo gisoon naa texte bi bëggoon naa ci changer ay mots ay phrases ay virgules je pouvais pas Sonko ne pouvait pas Barth ne pouvait pas keneen ne pouvait pas. c'est le pouvoir seul, avec sa majorité parlementaire. C'est constitutionnaliste. et le mm-hmm. président ki avait la possibilité bindal ñu constitution. Mm-hmm. ñoom ñoo dem ci plateau yëpp pour convaincre Sénégalais yi que troisième mandat mënta am wax ko ci lu leer moom ci boppam mi doon wax ci temps Ablaye Wade imaam bi dafay bañ a sëlmal en 2018 le 31 décembre moo ne bu ma Sénégalais yi wóoluwaate ce sera plus 5 ça va faire 12 il partir def ko wax a wax a wax a wax a wax a ba tey pour dem jafandu ji ci waxu x wala y pour indi troisième mandat bi nga xamante ne jëye lay andi moom ci boppam war na ko jomb ñi àndoon ak moom di leeral loolu Sénégal yi que mënta nekk. Mhm. xam jafe-jafe yu muy ànd ci réew mi. Mhm. bakkan yi ci jotoon rot war nañ ko jombal seen bopp. ay x wax na y wax na loolu waxu kasaw kasaw te nañ ko bàyyi ci suuf. benn dernière question. ma lire le le colonel. Euh, waaw colonel El Hadj euh, Momat euh, Sénébou Thiam muy poser question Sonko mérite-t-il d'être chef suprême des armées ndax bu ñu demee ba benn officier de hmm. l'armée di poser cette question là si ku mel ni Ousmane Sonko yow la la lay inspiré. officier de l'armée la. Hmm. colonel à la retraite wala lan la. bon c'est juste une contribution bu ma gis nii. léegi kes ki kes quest ñun non. qu'est-ce qui colonel la dara commentaire nga lire. non contribution. fan. mi ngi Seneweb. j'ai pas mm-hmm. c'est une question mooy mooy le titre de qui. Mm-hmm. de de de la contribution. Mm-hmm. mais xaw ma réponse am à lan la mën na ne kii laa di oui il le mérite <laughs> mënuma tontu ci loolu. <laughs> nit mën na poser question. Uh-huh. def son argumentaire. Uh-huh. arriver à une réponse affirmative que oui Sonko uh-huh. mérite bu boobaa lu ma ciy wax. yow yow yow yow bii ngay répondre. non liiruma ko non loolu aw ma ci benn doute ci lay xëy ci lay gont ci lay yëndu ci lay fanaan. on ne peut pas avoir meilleur président aujourd'hui ci li ma jàpp au Sénégal que Ousmane Sonko. beneen bi euh, dernière question yaa ngi wax l'opposition et le pouvoir doivent dialoguer am na ñu koy restant jàpp ne le président Ousmane Sonko doivent dialoguer. parce que dañu jàpp ne que c'est les deux forces du côté du pouvoir. ndax gisee bi mu gisee woon ak Embalo euh, si registre boobu lay dugg. non je pense pas parce que Embalo waxul Sonko Macky nee na naa la recevoir doonte xam Embalo était là ci bu muy recevoir Sonko en tant que président en exercice de la CEDEAO. Mhm. doonte jàpp nañ ne que les usages diplomatiques mën nañ ko inspirer mu ne yi man maa ngi bëgg recevoir un opposant mais je le reçois en ma qualité de chef de euh, de président en exercice de la CEDEAO. Mm -hmm. donc puisque nag dans la demande d'audience formulée par Embalo waxuñu ne Macky moo tax muy wax te waxul luñ bu mu toogee moom tamit waxu ko ne ci turu Macky laa lay waxee lii dañuy jàpp ne que c'est pas ce dialogue là et puis ñun nekkuñu en conflit nekkuñu en guerre. pour pourquoi ñu soxla des émissaires pour dialoguer par personne interposée de l'extérieur am na ñu jàpp ne ñaari relation ñoom ñaar dafa dem ba toll foo xam ne faaw am ku si ja mais mais Sénégal mën a gisante xanaa du Sénégal la ñuy wax pays de dialogue ñaata émissaire ñoo nekk biir Sénégal ñoo xamante ne bu ñu soxla woon président Macky Sall ak président Ousmane ko waxtaan ñoom ñaara woon mën nañ ko dox dix mille fois mieux que Embalo man gëw ma ne est-ce que est-ce que bëgg yow est-ce que Ousmane Sonko bëgg na gis président d'abord gëm nga ne Sénégal tumuranke na tumuranke kenn ko mën a nouer un fil de dialogue de sorte qu'on ait besoin d'aller chercher Embalo pour mu def loolu diggante Sonko mag Macky man sincèrement yabeewu ma noonu Sénégalais yi pour comme pour gëm loolu ci lima xam ci ay dimension ni ci nekk biir Sénégal benn mhm. deuxièmement est-ce que bëgg nañ ko kan moo ko war a bëgg pourquoi ñun bu mu wootee dialogue national demuñu parce que toutes les fois qu'il a cherché à dialoguer sànq dama la wax ne dialogue li ci am solo mooy na sincère man suñu soo mënee kaa ñu waxtaan ñu waxtaan benn affaire defaloo ko boo mu woote waatee waxtaan du ma ñëw parce que damay xam ne yow doo nitu kàddu c'est tout. maintenant la le le le dialogue am na ñu naan am na ñu ñu yóndi euh, si yéen pour mu mën a waxtaan pour ñoom ñaar ñu mën a waxtaan président Ousmane Sonko président Macky Sall. bon xam nga loolu dañ koy wéral am déet. non non non <laughs> man président Sonko xëy na wóoluwante nañ trop mais nekkul nag ci lu mu fanaan ma yëg ko bare li may li may wax am na loo xam ne lu ma du ma ko wax mais gëw ma ne gëw ma ne am na ñoo xamante ne ñëw nañ ne ku kaay waxtaan mais man je je je crois de façon profonde ça je le dis pas en en regardant d'un côté le président Macky Sall d'un côté le président Ousmane Sonko l'opposition gën na yaatu noonu opposition gën na yaatu noonu dañ la dénk li nga la dénk moomoo ko. noo fi yàgg yàgg yàgg di nga dem Senghor a fait vingt ans il est parti Abdou Diouf a fait vingt ans dem na Ablaye Wade def na douze ans dem na Macky ngi nii def douze ans dina dem keneen a ki ñëw dina def dix ans dem wala mu def cinq ans dem kon ci temps boobu séquence temporelle boobu ñu lay dénk rafetalal sa diggante gi ñi nga xamante ne ëllëg mën nañu la wuutu bi problème mu kii euh, amee amee amee récemment même en France bi élection législative yi weesoo. Mm. gisoo Macron politique ñu waxtaan. même ci ñu amee divergence dañ constaté seen divergence mais il dañuy waxtaane euh, seen dëkk noonu la Sénégal war a waxtaanee Sénégalais yi war a waxtaanee Sénégal mi nga xamante ne moom moo leen soxal ça permet de prévenir beaucoup de choses parce que nit ñi tant que ñu ngi seenante préjugé dafay bari ñàkk warmalante dafay bari ensuite ña ko wóoluwante bi dafay bari. loolu est-ce que installé wu ba pare parce que buñ buñ déggee. Euh, sa leader mu ne ñu ngi koy sampal ay ndëgg sa ref pour tere ku nekk candidat. non mais boo génnee taxawee tam beneen boor. ñu xoolante noonu. non c'est pas euh, c'est pas il faut pas dual amener boobu am na de. non am na mais mënoo résumer l'opposition à Sonko. am na ñu naan sax amnistie bi. non j' ñuy defar Karim Wade Khalifa <laughs> Sall c'est pour casser cette dualité là. et puis euh, par conséquent wàññiwaale seen doole yéen waa Pastef. non mais. <laughs> gis nga bu ñuy dem local. ñoom dañu ngemb Mame mbay Niang. jàpp ne que les frustrés dinañ ko votel et que ça va faire l'affaire de Diouf Sarr Barthélemy jàppaleen ak Yewwi Askan Wi làbbali leen làbbali gu métti 92000 voix de différence politique mën nga ci def di def tous les schémas possibles mais en définitive askan bi mooy ne lii nii man sama mbir la maa maa ko maay reprendre sama souveraineté lii laay décider maintenant évidemment boo jëlee boo toogee en tant que chef de l'État nga ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression tëj exilé tëj ba élection weesu nga révoqué mandat de maire révoqué en tant que député mm-hmm. gracier fekk borom bëggul sax nga gracier ko mm-hmm. ndax téye na ci dignité am mm-hmm. loolu dool nga jël doom papay jàmbur doomu jàmbur jëkkëru jàmbur ne ko dangay ngay siifaate xëcc bëgg a tuub bëgg bëgg mais à boo woowee du ñëw donc s'il y a de de la correction c'est pas lu mu dese ndax nécessaire na ou pas c'est à son niveau mais jàpp naa ne. Mhm. fenêtre sax boo moytul du fa génn bu persister ci lu mu nekk. par contre. Mhm. il lui reste encore une chance de sorti par la grande porte mooy na fexe bu muy dem mu dem ci dal te dem ci dal googu mooy un tu forces par de troisième mandat trois tu ne tu ne cherches à éliminer personne. quatre tu supervises la la compétition de façon transparente kon amnistie mënu wàññi doole Ousmane Sonko. nak la koy wàññi Ousmane Sonko am na si. parce que dañu naan il y a eu un vide boobu noonu la il a profité de ce vide là. du vide Khalifa Sall du vide euh, Karim est-ce que je te rappelle qu'on est arrivé en 2014 il y avait quel vide. et pourquoi il est le seul à avoir profité de ce vide alors que 2014 on était le 243e parti on ne peut pas réduire le mérite de Ousmane à et eh, de Pastef. <laughs> mais Bassirou amoon naa mbégte lool lool <laughs> dalal la xaabaabal nañ lu bëree bëri ma bàyyi la nga tàggatoo ñu doon teewlu. waa di la sant bu baax di jégalu ñëpp ñi nga xamante ne eh, nañu leen ñu di ñu teewlu. Hmm. te jombul ne mën nañu wax lu ci lu ñu d'accord lu hmm. leen métti lu leen heurté. comme ni ma la ko waxee ci njëlbeen émission bi wax dafa neexul. Hmm. bal la moo tax man je me fais rare sur Euh, c'est pour éviter aussi di di exposer wu à à offenser ou à avoir un écart boo xamante ne mën nga ko rëccu maintenant le propre de l'homme politique nag c'est de communiquer mhm. et de se faire comprendre mhm. parce que mën nga teg ay actes mën nga poser ay gestes mën nga teg un propos ñu bañ ko comprendre mhm. mais cet exercice là c'est pas quelque chose de facile mais day am soubassement waaw jërëjëf euh, Bassirou Diomaye Faye amoon naa mbégte lool dalal la si sera mi gulet ma am yaakaar di fi ñëwaat ñëwaat beneen laaj bu ñëw sama la <laughs> Sonko et la presse ndax jàpp nga ne position bi lu ñu war a mën a entretenir la mu mel ni day am benn inimitié entre les deux réalisation bàlle ma rek bu ñëw la léegi léegi non non tu sais ce matin j'ai je suis tombé sur une vidéo de Khadim Samb jombul sax gis nga parce que seen bi la ko waxee oui bi mu fi ñëwee woon wooy li mu wax sur les journalistes corrompus donc am na benn am na ki ma ko envoyé ma ne ko dama yaakaar ne que les de la presse nag dëgg dëgg dëgg jot na parce que bu fekkee ne ku jóg nga teg tuuma nga teg baaramu tuuma ci loo xamante ne mënta deñ c'est parce que aussi la corporation doit faire son introspection Sonko lu mu wax boo bëggee xam moom fu mu taxaw par rapport à la à c'est pas de l'inimitié hein au contraire bu muy def le le lancement du livre solution pour un Sénégal nouveau mm-hmm. Maïmouna Ndour Faye seen seen seen seen seen concert bi mm-hmm. def ko ne lan mooy sa problème avec la presse mu ne Maïmouna je n'ai aucun problème avec et que c'est même contradictoire de dire à quelqu'un presse bi moo ko fabriqué ba pare naan fu ma jógee tirer sur la presse. mais moom instant réseaux sociaux yi lay gën a kii day sax dem bay naan réseaux sociaux yi ñoo ëpp doole presse bi daf koy wax. mais c'est vrai Facebook moo la ëpp doole foofu yow. ak <laughs> non non man man d'accord. Facebook. non d'accord mais si homme politique si homme politique moom bu demoon ba nekk président de la République euh, dina soxla RTS. dina soxla les dina dina les médias foofu noonu mais il n'a jamais mën na opposant bi mu nekk moo tax ñoo si réseaux sociaux yi mais jàppee tey ji allié non yaa ngi yaa ngi juum Diallo yaa ngi juum parce que à toutes les fois qu'il a dit c'est devant des micros de la presse kon sa jarul sax ngay naan bu demee ba falu parce que ci fu mu koy waxee ci presse la koy waxee presse moo koy relayer relayer mais presse ñaata yoon la rapport de Transparency International di génn avec le forum civil sur la l'indice de perception de ngeen bind police la plus corrompue liste des institutions la les plus corrompues mhm. police inspect les impôts la douane nangam nangam ñaata yoon cinquante et million de fois gis nga bu mu ciy tontu Maïmouna Ndour Faye da koy ne a bi ngeen ko doon wax fekk ma nekk agent impôt sama yoon lu ci woon nekk parce que dans mon fort intérieur xam naa ne je suis pas corrompu donc je ne me sens pas concerné donc ku ci bokkul jàppal na bokkoo ci équipe on te parle pas gis nga xam lan la ñu war moytu yow mi nekk journaliste ak man mii nekk inspecteur des impôts ñoo ci yem le corporatisme baaxul jàllu c'est-à-dire la presse ne peut pas dire que je suis un sanctuaire inattaquable mm-hmm. parce que vous détenez une concession de service public mm-hmm. et vous bénéficiez de l'aide de la presse quand je dis vous je parle pas de Seneweb nangam je n'identifie pas je parle de la presse mais xam nga lu tax ñu leen lool loolu ah, après dès lors nag que vous êtes concessionnaire d'un service public les usagers du service public qui mhm. voient des impairs dans la façon dont service public là est délivré mais ils ont leur mot à dire non sur ce plan on est d'accord mais beneen mooy yenn discours yi conséquence bi par exemple gis nañu fi ay yu nekk ci benn organe yu dem di couvrir une manifestation de Yewwi Askan Wi ñu dàq leen kon foofu dañu ñëwaat est-ce que nekkul yenn discours yi ñuy tenir si yenn entreprise de presse yi moom mooy dem ba ba tàbbi si loolu. non non foofu noonu tamit question de responsabilité moom mooy dugg foofu. non non non dafa am loo xamante ne dafa am loo xamante ne euh, nit ñi soxlawuñu leader won leen ko ñoo koy gisal seen bopp parce que yàlla dafa andi lu tudd Facebook wala YouTube wala je ne sais quoi ak smartphone ku ci ne téye ko sa loxo nit ñi di ci def ay contenu di wax ak nit ñi ñuy xool c'est tout quand on prend quelqu'un dans une émission. ñu ne affaire euh, Adji Sarr ñëw na quest di qu'il dit moi j'ai besoin de savoir ce qui dans cette chambre beneen problème même nature ñëwaat mu ne non sama jikko sénégalais def may dab dama ciy maandu ça les gens voient quand vous prenez l'imam Aliou Ndao ngeen defal ko ay titres suul ko enfoncé ko pendant qu'il peut pas se défendre les sénégalais voient bu ngeen bàyyi ba nit ñi nekk ci biir campagne électorale en plein ngeen jël un candidat accusé ko de financement extérieur nga xam ne bu nekkoon dëgg ñun ñi ñu doon jiiñ ñun doon waaj di dissoudre suñu parti pour nemee ko tour ndax suñu militant à l'étranger xam nga ne bu ñu tuloo joxoon xaalis lu ci journaliste xam lu ci état xam moo koy parce que état moo ëpp journaliste moyen d'investigation kon nii kenn waxatul Pastef kon xam nañ ne du woon dëgg quand la presse se comme ça di ko teg ci ay ndollu doomu aadama di jouer le rôle de briseuse de carrière mais les gens vont dire la vérité gis nga ku ñu teg baaramu tuuma ci li nga xamante ne sa jëf la. Mhm. mu metti la sa jëf moo ñaaw. et c'est sous ce rapport là que la presse. doit faire l'objet est-ce que Ousmane Sonko ak euh, Youssou am problème personnel. non mais pourquoi. xanaa déggoo ko muy woy woy Youssou Ndour bi mokkal ko ba dee man bu ma amee problème personnel ak artiste du ma déglu sa su ay woyam de. <laughs> mais Basirou jërëjëf amoon naa mbégte maa ngi doog a comprendre la moo tax ñoom Souleymane Thiou Diop et Sidi Diop da laa sopp macha allah dañoo baax rek <laughs> en tout cas merci beaucoup ma sant la gërëm la bu baax a baax ci déplacement bi sant gërëm moo du Diop Mouhamed Sarr Euh, ak tamit Omar Sam ñi nekkoon si xarale bi jégaluwaat bu baax a baax DJ Bara moom ngeen di retrouver léegi léegi su ma jógee incha ak Keppaar mu war a fas yéene waxtaanee ponk bu amul solo boo xam ne day laal hip hop galsen jaa ngeen jëf wële na suñuy programme.